aoudu billahi min asheytaan irajim la hawla wala quwata illa billah alil azim asbuna allahu wa nihma alwakilu nihma almawla wa nihma nashir asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokk yi niy seetaan ci àdduna bi yëpp ak fu ngeen mënti nekk rek ñu ngi leen di nuyu nuyu bu sell te di ñaan sunu borom may nu nun ñëpp nu yendu ci jàmm ak salaam di ziyaar eh, niñ ko baaxoo defee suñ kilifay diine yi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 réew mépp mooy ànd échec kon yal na yàlla def projet yépp réussir bi jaay seydi wujoot sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñi feebar yal na leen yàlla wéral ci jàmm ak salaam ñi juum dem kaso ñoo ngi ñaan buñ fa jógee yàlla bu ñu defati lu leen fay delloo di ñaanal nag sénégalais yi nga xam ni foo dem ci àdduna bi fekk leen fa yal leen yàlla may dara te ñu ñibbi si nag ñu toog suñu réew defar ko ndax gan du tabax am réew ña fa dëkk ñooy defar réew ma di nuyu ñëpp di ziar ñëpp eh, xam ngeen eh, alxemes bu nekk dañuy toog ak suñu tonton mbaax mbaay mu ngi nii toog eh, ñu jox ko kàddu gi rek mu nuyoo mu dugg nag ci waxtaan wi bu neexee yàlla baay mbaax bismillah jërëjëf alaaji taal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fooy toll ñu ngi lay nuyu rek ni ma la koy faral di waxee toujours rek juróom bu ñu bokkee tege ci yoon dugg ci génn kër toog ci benn néeg bokkub laal bu ñu wóolontu rek kenn mën naax la ñuy wax lépp li nga wax lépp du ma ci jaar ndax wax nga ko ba noppi mën a béy la ko dëgg ba ngay béy fu dara néewul waaye ak mbéyeef nga bay ca kaw dut ak lu mën a bay te li nga ñaan doy na sëkk wax dëgg yàlla matale na yàlla yàlla nangu sa ñaan nangu fu ay ñaane nag yàlla na ko yàlla nangu ku wopp yàlla na nga wér ku wuti yàlla na nga am ku jaay yàlla na nga jaral ku jàng yàlla mokkal ku tukki yàlla ni bis indi ku lekk yàlla na rees teg jaamu yàlla reesal ko yàlla teg yool bu seytaan du fa yegg ba di ko yàq yàlla man na ko am na ko yàlla na ko def li nga xam ne nag rek moom laa la bëgg ni la dama ko dama la ko war na wax sax waaye xam nga xel du mat euh, sëñ Bachirou Baara sama wëllëre woo nga xëy daa wàcc ab liggéey ca Touba nga xam ne tuwaar fa kàlla bu nu ko yàlla mayee mu jógee fii tey foofee laa jëm incha allah ndax guddi maam Sera Fall gi biig la woon su ko defee ma demaale fépp dem jaale ji Meysa Diop nga xam ne bi moo doon soxnaam te ma nekkal moom fii ci géejawaay xam nga taal nit boo la ne jàkk ñëpp bëgg ko mun la dama laa bëgg sas na la te loolu ma sëñ Bass Paara defal àdduna bépp daa toog ñu di ko siyaare mu ne ma mbaax ma ne ko Fall mu ne ma xam nga man am nay géwal ma ne ko bu baax ko xam balay sax mu ne ma xam nga man am nay géwél bu baax mu ne waaye man yàlla moo ma la bëggloo te incha allah danaa la ko woon tubaar fa mu jaar man keroog tubaar ni ma lu ma la jox su ma yéegee ci kaw étage bi wàccaat fekk la ci néeg bi fii ci suuf ma jox la ko kooku nag comme yàlla def na jiitu na ma maa ngi koy ñaanal ay ay xulwa ci barkeb maamam barkeb waajuram barkeb ndaam gi mu ko séq ak mbàkke ndax màggat loo ko meñ ndaam rek la jógay de sara ko jukkum yomb naa woy maaram rek foofu mooy mooy maamam këram da yole la bokkam yëpp xëyee kon yal na yàlla xaaroo ko àjjana ci barkeb rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñam fay fekk ak ña ko fay fekk yàlla mën na ko yàlla am na ko sëñ Bas Baara yal na rëccul mën a def daaru dunya bi jaay Seydina Muhammad Rasul di ko jaal nag mboolem mbarag lu xulle nga xam ne ay bokkam dafaa ne di ko jaal itam mboolem luy waa pir gépp bàyyiwuñu kenn ak mexe yi ba wuñu ko yàlla bind yal na yàlla sëñ Bas Baara yal na ko yàlla xaaroo àjjana ci bi jaay Seydina Muhammad di ko jaal tam borom kër gi ndax dégg nañ ci ay démonstration yoo xam doxal nañu ko ci yal na yàlla ah, aar nu mm-hmm. aaraale ko moom fa mu jëm ndax yàlla rek ko yor yëf yi nag bas. Mhm. ah mën naa la ba mën naa la bas sax bas. Mhm. Eh, taal mhm. yàlla yor yëf yi. kon moom mi yor yëf yi nag. nu ngi koy ñaan. mu yërëm ko te yërëmaale nu lu ci waaye wax nag kilo lu baax yàlla nay sa seede yomal xiyaam ak àjjana bi jaay Seydina Muhammad yàlla mën na ko yàlla na ko def. yàlla na ko yàlla na ko yàlla Mbaax ñu ngi dellu di ko jaalaat jaaloon nañ ko sax. Mm. parce que moom mbokkum waa réew mi yëpp la ndax xam nga ku sant loo moom Euh, yàgg naa jaxasoog euh, mhm. kër yu mag yëpp mhm. waaw ñoo njóobeen yéeg faaleen yéeg njaayeen yi xam nga mhm. Sénégal moom noonu la um, mag ñu baax ñi dañu doon dem ci kër yu baax yooyu di fa jël ay soxna ndax bëgg a jur ñu baax loolu lañ ci jublu waaye Baye Mbaax xam nga démb dañoo nekkoon ci waxtaan woowu yaakaar naa am na loo ci xool sax mooy dëkk bi dañoo seetlu ni daal xamari gi dafee bari yaree di ko gi bari yow nag mag nga li ma lay laaj moo di yow euh, yéen bi ngeen di tuut tànk naka lañ leen doon yare parce que tey jii dañu xëy rek gis ni euh, lu neex waaye def Sénégal euh, mel ni nekkatuñu ay nit euh, yare di ko gi bari maa tey gi bari te li ci gën a doy waar mooy da ngay gis ku magum jëmm gën a yaree di ko gone waaw nu ko neex lay dawalee nu fu ko neex lay lal ci kaw tali bi léegi amatul sax ay tro ay trottoir léegi tali bi moom oto yi ak nit ñi ñoo ko bokk ak yeneen ak yeneen démb sax am na ku ma wooni ma am na benn point war nga koo seet ma ne ko waaw mu ni ma pneu yi ñuy def ci oto yi pneu day yàqu gars yi jël ko defaraat ko peinture ko jox ko oto mën naa créer ay accident wax na dëgg parce que Sénégal léegi Baye Mbaax lu neex waay def waaw yéen bi ngeen di gone Baye Mbaax di tuut tànk naka lañ leen daan yare yéen. Euh, laaj nga nag loo xay ay émission la moom. Mhm. waaye deenu ci tibb rek ndax ki dégg yomb naa waxal. Mhm. ki dégg. yomb naa waxal xaw ma nag kuy déggee na ko neex moom. kooku moom kenn mënut a wax ak moom. nun day dem na ba ci lii ma la nu woon léegi maanaam du géwél yeeg tëgg mi. parce que yow li nga làmb ñëpp daa dugg ci biir. Eh, yar ci boppam. ci daara. lañ ko jëkkee nun jullit yi. ummati rasul ci daara. tubaab jëkkee ko ci quartier. ndax loolu boo dee mag solo quartier. loo bañ seen kër des na ko def ca quartier ba mhm. eh, yar itam ci alxuraan mhm. dañ daan yeew nit ngir ngir jàngal ko alxuraan mhm. jéng ko jéng ko waaw waaw yeew loolu teg gis nañu loolu gis nañu ku dagg sax ginnaaw dongo bi mu doon jàngal xëcc jul toll ni bëgg koo xëcc mel ni ku sëgg guy ngir bëgg rek mu am mu am xam-xam am jom loolu yépp nag réew mi boo waxee ñu rek daa yokku boo xam ne développement développé nañu waaw réew mi développé nañu développé nañu ciw nit développé nañu moom ciw nit waaye li may faral di wax toujours toujours toujours dañoo bàyyi seen ginnaaw ñoo bàyyi suñu kër yi bàyyi ñëw kër bàyyi jaambur toujours dugg ci domaine boobu chaque jour dugg ci domaine boobu maag yow damay fekk nag dama ciy def ay émission ba tuddi ko jikko mais dama laa xamal ne la nanu daan yare dama daan tukki fab sama doom jox la ni la sama kër xoolal ma ko. bu dënk ku ci tooñ jubbantil mais léegi loolu amatul. amatul waaw koo duma doomam mu ne yaa bu lekk yaa ko jox ba naan. bon su fekkee ni ci maanaam wax la. doom nit ku da ko daa jàngal ay kàddu dóor du yar nit. ay kaddu mooy yar nit. da ngay def conseil de famille. mag ñi dañ daan def conseil de famille démb. bu ñu reeree seen cere mbuum jooju ba noppi. ñu toog cëtt ba. di léeb di léebal gune yi ba mhm. bukki ba dabee gëléem gaak ba mu jaaree nii ñuy ree ba yàgg ñu suppi waxtaan wa ak Samba Seytaane ak Amarum Julli Samba Seytaane ak Amarum Julli ak Kumbaam Ndey Kumbaamul Ndey léegi dem na du léegi woowu nag Baye Mbaax bëgg na maa gis ku ko mokkal kan ci Samba Seytaane ak Amarum Julli waaw Samba Seytaane mhm. euh, loolu beneen affaire la doonoo ñëw ci lii waaw waaw dina am bés ñu ñëw ci danaa la ci may dégg léeb yooyu nga xëy muy sàmb seytaane ak amaram julit mhm. ak kumba am ndey ak kumba amul ndey mhm. daanaka ñoo bokk gaam mhm. mais dañoo wuute waaye daanaka ñoo bokk gaam eh, ak ku bi jari ndeer yi yooyu yëpp ay wax la woon yoo xëy mag ñi dañu ko daan wax gone yi di leen ci wax yee ci àdduna gone yee nangu na ku leen yee waaw gone yi dañoo nangoon ku leen yee bi ñu ci ca loolu nag ba muy am bi sant yi doonee benn soo ganee fi barab boo santee taal ñu demal taalee na nga ne nga ñëw sant Guèye ñu la ngéyee na nga ne nga ñëw sant Fall ñu la paalee na nga ne nga sant Mbaay ñu la mbaayee na nga ne nga sant Gaajo ñu la tëgg nga ne <coughs> demal tëgg <coughs> waaw loolu lépp amatul ndax li tax amatul dëkkub cosaan boo fi gis gent na li ci ëpp waaw li ci ëpp lépp gent na ndax bari nga ci dëkk boo ci dégg bés boo fa demee lu mat juróom benn néeg du fa ne ñi màbb nañu ñu ngi kees ñi màbb nañu ñu ngi ndakaaru ñi màbb nañu ñu nga kawlax ñi màbb nanu ñu nga France kër goo fi woote tey dem fa doo fekk yoon benn waxambaane yu mat waaw soo bàyyee sa kër baay dem ci kër baay ab jaambur wëlbati ko dagg ci langa li may faral di wax ni leen nit fekkee ne da ngaa juddoo cim réew màgg cim réew ñu wëlbati ko jox la ak ndomba di nga xam noo yore réew ma te ñu yar la danga xam noo yore réew ma dëgg waaye nag na ma yàlla bal baal kuy nelaw rek teraanga dab la mhm. doo xam noo ko yore ndax da ngaa rek mu yee allah kulli haal mais Baye Mbax wax nga wax nga wax ju solo parce que daara jàpp naa ni foofu nga wax nii daara ak quartier euh, dañ fa daan tàggat xale ak noo mënti mel boo fa duggee incha allahu di nga am yar parce que dañ lay forcer nga yaru euh, bokkoon na ci it fu ñu daan defaree jikko yi ci lël yi ci lël parce que lël euh, bi may waxtaan ak góor gi maam benn mbuub daf maa wax ni ma gone buñ koy jongal muy jooy du am jom ndax noonu la ma ko waxee dafa ma ni ni yaay ji téye fii ci bi tànk baay bi téye fii ñuy jongal muy jooy du mën a am jom parce que kuy jong di am jooy di jooy du am jom mu ni ma dañ daan bàyyi xale yi ba ñu am fukki at ak juróom dëgër kën noonu la ko waxee sax ñu dajale leen lu mat ay bis ñuy fecc di tëgg di xas e yóbbu leen ci àll ba jongal leen bu ko defee ñu ngi ko tuddee woon l'éducation par l'épreuve ci lañ daan formaté doomu aadama ba mu am jom euh, respecter amitié xarit maanaam xarit xam lan mooy xarit xam xam am bañ gi mu doon def yépp ñu dindi ko ci moom parce que dañ daan jël sax da nga daan gis kii bi góox dara euh, selbe bi xaw ma ñëw sotti ko ci li ñuy li ñuy lekk pour nga lekk bañ a bañ a bañ a teeyal sa xel ak yooyu pour di la ci yar fan yooyu ngay am ci lël bi daan na nekk loo xamante ni aussi yar la woon gis nga ñu ngi ko tudde woon sax néegu góor soo fa jógee nag génn xam ne lépp lu ñuy war a def ci doom ju góor def nañ ko ci yow te loolu daan na tax di nga am looy jomb di nga sam sa nawle di nga respecté xaritoo parce que dañ wax ni boo nit boo bokkee nit lël sax day wax ni boo fasee sama jabar dog na yooyu yëpp nag nekkoon yoo xam ni yu amoon solo la waaye léegi banaan ko da ngay juddoo à l'hôpital ñu jongal la fa sunu bokk yi sunu yaay yi ak sunu jigéen yi aussi dañ daan jam seenum siiñ ba mu ñuul kukk ñu jam seenum tuñ mu rafetoon lool nekkoon yoo xam ne day tax rek nit ki euh, euh, tàmbali mu xam ni dafa war a am fit dafa war a ñeme dafa war lépp luy nawleem di def te muy lu baax mu mu def ko même bu dee dafa metti sax dina ko def ndax euh, sama yaay nettali na ma nee na moom bi muy jamu dafa daw parce que yaayam da koo yërëmoon ndax xale bi mu doon mais comme gis na ay moromam di jamu dafa daw dem jamu ji parce que booba rus na toog ak i moromam ñu jam seen tuñ ba mu ñuul kukk moom bosam euh, xong coro donc yooyu yëpp ay ay ay kii la ak moo daara yi parce que daara wax dëgg yàlla man la ma la fa laa jaar fa lañ ma yare parce que bis bu ne ma wax leen ni leen man sëriñ ma sàmba silla moo ma yar ca ñaxal kër libaas waaye góor googu li mu def ci man su may wayjur sax defuñu ko ci parce que moom euh, te li nga wax léegi nii baat euh, wax mooy yar pas ab yar pas dóor parce que mas am benn bis ma ubbi gaalam di ci sàcc miskit ma sàcc miskit di tëj mu ñu teel gaal gi ni teel mu ñëw ni ma loo doon def ma ne ko dama doon sàcc miskit mu raay raay suma bopp ni ma boo fenoon dama lay rey xam nga jooju wax euh, wax na ma ni ma boo boo dee wax katu dëgg boo ñemee dëgg rek yàlla mën na laa musal parce que mën ngaa def lu ne mais soo nangoo dëgg gi ma manees na laa baal donc mu nekkoon yoo xamante ni dañ fa daan yar dañ fa daan defaree gone mais tey jii baay mbaax wax dëgg yàlla seen yar boobu ñu du leen doon yar nga xam ne euh, ñépp amoon droit yar gone yi léegi amatul léegi li nga ko waxee léegi rek boo dóoree doomi jaamur sax pour defar ko mun la yaa est-ce que yaa koy dundal lu tax nga di ko laal te yooyu baay mbaax amul woon yéen seen jamono. waa xam nga da dugg ci domaine boo xam ni. Mm-hmm, mm-hmm. nun dañ daan tëgg ab lël mm-hmm. di toppi aat. waaw. dañ daan tëgg ab tëgg tëgg ab lël di topp ay aat. ay aat waaw. tëgg na nu jàng doon dal muluk teen saasal ngem ak sëñ Mor Fall Kanaar. mbaax mbaa jiin ma sala maa ko loolu dégg nañu ko ba tàyyi nga waxambaane waxuñu fukki at ak juróom-ñett kenn mësu koo ñemee xarfal waaw waaw ñaar fukki at ak juróom ñaar fukki at waaw nga xam ne di am doom sax ki sa biiru aat mhm. di nga ci am doom ba bu ñu lay jublu penku mhm. dañuy yóbbu doom ji ca àll ba ndax du dégg dënd yi mhm. yaa ngi dégg <coughs> ci biir lël bi ngomaar kool ñu ngi ko tudde woon ngomaar da ngay commencé juróom-ñetti fan juróom-ñetti fan alxames ngeen di commencé ba ajjuma ngeen door a jublu penku ajjuma ba ajjuma ji dellu si ngeen door a jublu penku sa bàyyi reer law nag mbaa sa mbaa mag ju baax mbaa sa su fekkee ne def nga koo xam ni nag amoo ndijaay sa papa réeru law nag foofee la commencé jom fa la ñu commencé jom nga dégg kuy léebu naa sa ndijaay na rey na kuy tegal mbër ne sa ndijaay na ñee saa sama baay wàcc na rëy na kuy téegal mbër ah, sama baay wàcc déggal yi bi wax te yow sa baay deful dara sa baay deful dara foofu fa la fa la mbiree daan commencé waaw yabeel ga daan commencé ci Kajoor gi yabeel ga foofu la daan commencé mhm. dégg nga sama baay wàcc na mhm. ah kii nag am ab jarbaatam réelu ko réel ah, réel ah, réel koom xar réel koom nag mhm. doom ji mu jur astaghfirullah te mu doon doom ji mu jur de te mu yar nag doomi ji la ji mhm. ci biir kër gi mhm. ba ñu mag di jublu penk ñoom ñëpp mhm. mu reel doom ji mu jur nag aw nag bàyyi euh, bàyyi doomi ji la bàyyi bàyyi doomi jiit la ji ndijaay ji nag dikk reel kow nag ndijaay doo ki ndijaay doomi jiit doomi jiit la ji ñu wëlbati ku ñoom ñëpp ñu ñu taatu leer gaa ngi neex kenn ku ne jox la fulaar géwali dar la randanga ndangal xëysa gan xëysa gan xëysa gan randang ñu ñu ñu ñu bakkaat xale ba daal ne gune yee koy jëndub caga ñu ne gone yee ko jëndub caga mu ne sab taaw bu sab taaw jong nga réyal ko aw nag sa doom bi jur la jong nga réyal ko mbuum bu dul woon sa yaay sa baay gàcce deema gaa jaañ gone yee kuy réyab caga ñu gone yee kuy jëndub caga su ma génnee sama ndey fase su ma génnee sama ndey moom dafa bëgg yaay ji tas déggoo li wax waaw sab taaw xaraf nga réyal ko aw nag uh-huh. man ma xaraf réere mbuum mm-hmm. bu dul woon ak sama yaay kon ma réere mbuum waaw waaw daal ne gone yee kuy jëndub caga su ma génnee sama yaay fase xam nga uh-huh. li ma li nga wax da nga ciy dugg te mënut a duggee dafay sori ndax dama leen daan topp xam naa li xew. Mhm. ci ci kooku wet. mais demal bon foofu baax na ilimaan di nga dégg kilifteef ñu ngi koy commencé ci. Mhm. cib lël. Mhm. ka sa bàyyi mag ca dëkk ba moom lay def ilimaan. mut nag tokk ka xam moo gën di ndaw ca ci dëkk ba. Ah, ka gën di ndaw ca njulli ya. moom la ñuy def tokk. dem ca tëgg ya nag wut fa nag ah, bëj géwél day am ak bëj legat bëj géwél mooy jigéen ju góor xale bu jigéen bu góor bu jigéen mm-hmm. doomi bëj géwél ba ca dëkk ba moo koy doon mm-hmm. bon tokk itam euh, ba bëj euh, lekat mm-hmm. ñu dem ca tëgg ya moom itam jël ca ndey caam baay caam wala ndey euh, kase baay kase wala lu mu ci doon sant wenn sant lay doon ñu wëlbatiku moom mu dikk doon tokkam ñuy root nag dend ci lël bi ñu ngi dégg ñu diw maa ko yóbbu néegub góor su ko defee ñu tàllal ñetti goj ñetti goj goj bu nekk ëpp na mbaa mu tolloog moom ñu def fa mbaar ma foofu lañ lay wullee yàq bu fekkee da ngaa bu jaayib juddu nit day dem dañuy reyu nag ñu tibb ci sibur su dikk def ci laax bi jaxase nga wax yet yi dal kenn du la yërëm foofu lañ lay dindee ci ak ak am jom foofu la koy dindee ak ñàkk jom jomit foofu nga koy jëlee su ko defee nag njulli mais xam ne moom moo nekk nag euh, lamdu ji moom bu waxee ginnaaw bootal bi su lamdu su toog su lamdu waxee ñëpp ànd ci ànd ci tokk itam bu ñu lu ñu yónnee la moom mooy dem moo ko lijjanti mooy def lépp kilifte foofu la commencé toftonteeg dooru dikk su fi lëm di jógee kat ñu ne diw ñu ne bàyyam mooy ca topp moom itam mag ci nun kajoor loola mooy fa la fu la kilifteem jógee waaw bi ñu demee nag ba loolu nga wax léegi am mm-hmm. ah alhamdulilah rabbil alamina ku juddu ñu xarfal a ah, waa naka lay wax dëgg yàlla ndax fu mu jële jom ndax jooy wax na dëgg mais li gën a indi nag ñàkk jom gi ci réew mi mépp ak teñ teñ di ko dox di wax mm-hmm. te noo ngi ci biir mm-hmm. cin fokkul bënul ko ko toggun jógu fa yàq ba ci neen anam mm-hmm. naa laaj mat laaj waaw li yàq jikko yi mooy li nga xam li moom la ne naf nafee mm-hmm. xaalis alali jamono yooyu ak lan mm-hmm. li nga xëy moom lañ dégg sunu baay tubaab mii waaw roy nañu ko ci yooyu ba mu wan nu boppam nu wëlbatiku nëbbu nu sunu bopp eh, te jànguma mais gis na ci wàllu tubaab tubaab africain du ko bind mu ko wax ju baax déedéet ndax sunu mag yi démb yi kuy nettali képp démb ak cosaan war ngaa mën na nettali seen mag ndax mag yi mag mu ne am na fu sa maam def ah, mais déedéet du ñu ko tudd ñoom ñoo ko jëkk a boycotté mhm. soo waxee ñu ne non non yooyu démb la woon mhm. mais li ñu nettali ci ak ar di itam la woon mais ah, nu xamal ni nag li indi li gën a dëx rax mbir mi mhm. te gën koo rax mbir mi mooy yow dama yàlla baal dama koy faral di wax nga naan ma déet mais dama ne koo xay bu ñu musaani asalaamaaleykum ci néeg ni la ci biti fekke woo waxtaan ndijaay boo ko amee ci réew mi bariwul nga wëlbati ko jàng di maye lépp nga jàng ba sa borom jox la daraja mais da ngaa war a am nag daraja joojee nga wute ko dara ëllëg mais dañu ko dul wute dara ëllëg lañu ñu manqué moom la ñu fa mottale ko ca la ñu leen di def jal koy won nit ñi nag année fee nag ñi xam kenn laajatu leen déedéet. Mhm. bu yow mi xam ni. Mhm. kenn laajatu la. Mhm. ñi ñi ñi nga xay lu ñu wax ni baax na. ñooñu la ñuy laaj. <laughs> ba léegi doon naa ko waxtaanee benn bi ñëw ci oto bi sànq. loolu de mooy problème ma ni ko géwéli ak géer amatul parce que. mu naa mën ko ndax tax amatul géer ñeenu dax wax. dan daan tëgg ba mu ñëpp ñëw. géer ni la déglu nga déglu mu jël wax ja wax ja ko ja wayaane ko suba ko xëyee ñëpp mu topp seen bureau. kenn ko ne wax la yëpp géwél bi du tax baax ja non non non xaar tuuti kii wax. yow yow duut yow duutoo am na maanaam loo mën a wax te li may gis ci télé bi mu naa mu ne ko diwa ma solal lii ngay dégg waaye dégg gu mu ci géwul bu ñu diwa ma solal lii waaw kon nag loolu te boo tuddee ñu ni yaa boo waxee ñu yaa ngi def nii ku defeenu ci lan la day bañ ku ku ku dee ci ron day bañ ku defeenu kon nag li yàq réew mi dafa gën a bari kenn ku nekk ànd bi nga waroon da nga koo wàcc war ci beneen ub ndax yéen xam nga nag loolu bàyyi mbaax mooy mooy mooy li tardeel Afrique yëpp ah, ah, mooy complexe xam nga complexé di jëm kanam gis nga boo complexé maanaam euh, tubaab bi moom liggéeyam réussir na ko parce que li mu doon li mu doon jéem ñaari fànn rek la mooy ñii dinaa dugal ci seeni xel be ñu xeeb seeni maam. xeeb ah, seeni jëf. ñëw nga dinaa fexe ba aussi affaire u juddoo euh, di woy sama maam. na fi jóge waaw parce que loolu euh, Léopold Senghor nag def na ci lu bari xam nga sànq yaa ngi tudd Mamadou Dia. Mamadou Dia bu fi nekkoon. du du demee nii parce que Mamadou Dia yaroon na nit ñi ba ñëpp tegu ciw yoon waaye nag comme li mu doon def mooy defar ab sénégalais ba mu nekk citoyen bu lépp léppam mat bu respecté loi yi respecté charte réew mi respecté lépp lu mu war a respecté tegu ciw yoon jaar ci siraatal mustaqim looloo tax ñu écorté ko parce que tubaab bi pour mu mën a continuer di la nax di la exploité il faut nga manqué parce que hmm. manqué dëgg manqué mooy xeeb li nga am. te amoo lu dul loolu amoo lu dul say maam amoo lu dul sa histoire nga xëy xëy ni ko fa teg dem di jàng histoire tubaab ay Baudelaire ay Molière sunu histoire sax tubaab bee ko far bind. te pourtant ñun am nañ fii ñu ñu bind boo demee dans l'histoire du Kajoor euh, euh, góor euh, Tanor Lapsukaabe Fall mais amul lu ñuy bara bind ci Kajoor te Tanor Lapsukaabe bindu ko. amul lu ñuy war a bind ci histoire Jolof lu euh, euh, Omar Leyti Ndiaye bindul lépp la bind bon bu may déggee ñu naan dañuy bindaat histoire réew mi ma ne xanaa bopp Kajoor ak bopp Jolof bokku ci parce que loolu même Alaaji Kànni Sàmm bind na ci téere boo xam ne lépp a ngi si biir askan yaa nga ca mais nag histoire bi nga xamante ni moom la tubaab bi soxla pour noonu mooy bopp du am garmi du ci am du am kii moo fi def lii wala sëtub dëcc fu njóogu la sëtub sëtub biram njéemé kumba la yooyu yëpp nañ ko effacé parce que loolu mooy tax parce que am na ñoo xam ne dañu bëgg a fayu ci histoire ah, ah. fayu boobu nag wa wax nga ko fayu boobu non bàyyi mbaax yow <laughs> parce que xam nga moo tax toujours damay wax gars yi ne xam-xam du jàng tubaab ba sori ca <laughs> bàyyi mbaax mii li mu xam mën ngaa dem université ba génn fa mënoo koo xam waaye nag moom dafa jàng boppam parce que xam-xam yëpp xam sa bopp ci gën. Mhm. parce que nit bu xamul boppam. aw xob la rek buy naaw mais léegi. am na ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla dañuy jóg pour xeex loolu bu fi bu fi kenn tudd maamu maam maamu buur ah. ay buur amatul mais buur léegi yow ki lay tere ki tax nga gëmatoo buur moom ma nga téye buuram bërki démb rek laa gis fiançaayu euh, euh, prince bu bu bu bu Angleterre ak xale bi mu war a takk mais déjà télévision adduna bi yëpp ñu ngi koy préparé pour mariage boobu nga xam ne xam naa sax boo moytuwul 2S dina bokk ci ñi koy def en direct parce que adduna bépp a koy def en direct ñoom ñu nga téye seen i buur boo demee France Monaco mais prince baa nga fa boo demee Belgique y' a un roi mais mais nag léegi comme par exemple dafa am ñooñ euh, parce que Sénégal nag loolu c'est très grave <laughs> dañoo jiitu woon <laughs> la gën jiitu ba mu yàgg ñu ni dëpp leen la la la kii woon te ñooñu nag ñoo fi ne di fayu nag. parce que ñooñu ci la gàllo yi nekkoon ci la ci la ñu manqué ñi nekkoon ci la surga si nekkoon c'est la vérité ah il faut qu'on ose le dire mhm. mais nag bu ñu histoire parce que boo demee ci ci royaume bu mel ni Kajoor bi ma gën a maîtriser mais même boo dee gàllo sax joxoon nañ la cër boo dee tëgg joxoon nañ la cër bu ne ngeen dégg baja gàtte mhm. loo mënti doon rek ca réew ma am na cër bu ñu la joxoon wan la ni la ci ba ci nga bokk sunu nawle nga mais tey jii nag dafa am ñoo xam ne parce que dama ne nag wi bu fekkee buñ ko reyee doo ca am lu dul ñaari béjjén ya bu méddee sa yoon nekku ci baay mbaax am de. waaw xam nga dinaa koy faral di wax. Mhm. koo xëy bu nawi dee. sa mhm. maamum kërandoom la ca am <laughs> doo ko coo yàpp bopp. <laughs> Eh, teraango yëpp dañu ko fee jëlee. Ah. waaye pour li nga wax léegi ma doole laa dimbali. Uh-huh. na la wóor ni bu fekkee dafa am lu nuy wax rek. Mhm. mais nan ko wax amari ngoon sa ma la man dee ci fu njóogu bi nu jolof yi li fee fanweeri ak ñett. koo fi tagg maamam yéen a nagal ak yóbbu jolof. wallaahi. ah. Mhm. koo fi woy maamam la bu ngóor si màggee ca la kajoor léeboo ni doom bu màggee faj daani bàyyam ndegam baax na. Mhm. loolu la nit ñi nangootul. ah loolu amari ngoone jëli gale gi jolof cib tënk ndax waaw ndax xajul sax ci weer mhm. jëli gale gi jolof wëlbati ku ñu ne nag léegi nag nan def buur ba jolof buur ba mu ne déedéet day niroo kajoor bawol siin saalum Euh, Fuuta euh, Njàmbur Waalo ñii dajaloo def benn dank ni ko yow mi jëli gale Jolof kay yow la nuy fal yaa damm yatu jaar ñu jaar waaye dañuy rek damm nañu loxol Jolof waaw ca danki te danki aw yëkk la te ñu ngi naa déeg ba ca danki te danki aw yëkk la bu doon naanee ca déeg ba ah. waaw aw yëkk la dégg nga. Mm-hmm. ak gile waaw histoire histoire Baye Mbax. dafay bari ay. waaw dégg nga waaye bii ak gile. parce que parce que boo gisee par exemple ñu bari parce que version yooyu man dégg naa mais boo gisee par exemple euh, nit ñi yëpp gëm ni ndoxa fa woon parce que xeex yi am. Ah, kay ndoxa nga xeex yi am ci àdduna yëpp ci wetu ndox la amee parce que jamono jooju fas yi ngay war ak loo yi ñuy teg arme yeeg ñoom seen il faut que ñu am fu ñuy naane donc toutes les grandes batailles ci ci am ndox la la amee. parce que man dem naa ba fa ñu xeexee ndox amatu fa nag c'est à 400 mètres de euh, de Sagata Jolof fa la booba booba Sagata Jolof fa la fa la leeli fu li fàkk nekk mais à 400 mètres du village fa lañ xeexee parce que boobu amoon na ngandum déeg bu ñuy wax déegub dànki xëy na nag nag waa mën naa tudd danki daan fa naane ji waaye xeex ba moom mi ngi am autour du point d'eau là bi nekkoon à 400 mètres du village de Sagata Jolof fa lañ xeexee fa la fa lañ te xeex bi sax euh, am nay version yu bari daal xam nga histoire moom dafa bari ah, dafa bari version waaw ba dikk waaye man mhm. euh, man mag ñee ma jàngal waa kay mu wax man jànguma ci këyit mhm. déggewuma ko ci nit ñi ma ko déggee da nga tëdd ba digg du ñu yee la ni la ba may woy diw fu ma toll woon mhm. <laughs> waaw waaye danki aw yëkk la. waaw waaw man na ne. dé déeg ba mu doon na ba mu doon naane nag ñu déeg ba danki naane. ba danki waaw koy déeg ba danki naan nan fa daje. looloo ni turu danki. waaw kay foofa nag la ñu xeexee. waaw mi ngi mel ni gille. waaw gille itam ab tool euh, nit la. Mhm. tool ba gille doon liggéeyee. Mhm. loolu toolu gille ba moo indi turu gille. loolu loolu ma nga yang yang aussi dem na waaw dégg nga. fi Samba Laobé doon jàppanteeg Alboury. waaw dégg nga mhm. kon. su fekkee dañuy wax ci réew mi ku sa maam baax. mais no nu bàyyi nu bàyyi ki nu jëlee la gàll ak jolof bàyyi ki jëkkër yilif réew mi fanweer ak ñett ñi sant Njaay yilif réew mi koo fi wooy maam yéen nag yóbbu yóbbu na gàll ak yóbbu jolof bi nu jolof bëggee rey gune màgge kajoor wëlbati ku dagg ci laa nga laman day ci fu njóogu di bàyyam Ngoone Njaay meññ ko mu wëlbati ku ne saa bàyyi xew ci ginnaaw ku ginnaaw yàlla cib tënk dem jëli galag ko jolof réew mi yëpp dajaloo waat ne ko ginnaaw nag yaa nu dindil galak gi jolof yow la ñuy fal nañu fal sa baay bi mu ni déedéet du ma dégg damel sans baay di dund mhm. ñu def Amari Ngoone Sawal juróom-benn fan la dund ca nguur ga mhm. dëcceefu njóobu waaw dëcceefu njóobu juróom-benn fan la dund ca nguur ga mhm. ñu dajalowaat ni ko ngor ga de paxte yow mii lay dal daal di koy defaat damel ba doon fanweeri damel ak benn la jooro ko moo ci mujj moo ko benneel ñu damel sàmba la bañ ci kaar bi ci teewoon loolu yi lépp am mag ñoo ñee jubboo ga ñu jubboo woon ba attana def loolu mag ñii fi ñii fi nekk tey di ay nitta te ñu am nañuy xam-xam jubboowuñu noonu kenn ku ne ana loo bëgg a def mm-hmm. def loola sa moroom beqee mm-hmm. werante lañu jàng waaye jànguñu original werante rek ak weddi nu ñu la weddee rek <laughs> boo ko waxee boole nu fii rek nu di géwlu dajalo kii wax kii wax kee dee daal jug daal koy bëgg a beqi ah, ah, ah. ci biir yi wax te xam nga ni koo jurul jëndoo ko te li wax bu yàgg koo wax mm-hmm. am na nu boo na waxee da koy xam li ngay bëgg a wax loolu moo gën a li gën a biimil réew mi mooy loolu kenn mënut a téyel nit ay tànkam kenn mënu ko dëgg la non nag noo ci raw fexe na na ba nag sunu alal jooju géer ñi taf ko waaw léegi nag naka ngay mën a def mais mais porter leen plainte lu ku ne porté plainte. porte leen plainte jox ma ko ma yóbbu ko procureur. parce que yéen bu fekkee géer yi léegi li ngeen doon def lépp ba di ci mos dara ñoo leen ko dàq kay. mat naa lijjanti ah bàyyam daal ah, ah. ah, da géwél yi di woyaat ma ne mais géwél bii xamul li muy tontu. parce que bu xamoon li muy tontu waa ji du ko wax li. man wax woyaan dama ne <laughs> géer ak muy animateur ak muy keneen ñëppay taxan taxan moomu nag taxan moomu man man man baay mbaax ma tënkal la man man baay mbaax man bu ma sañoon saa yu ma xëyee yor dara sama géwal jóge këram ñëw ba jub sama buntu kër wooy ma ma may ko dara. waaw ñii ñoo bokk parce que parce hmm. dëgg dëgg loolu dafa neex. dégg naa la dafa neex te ci man. ci man ñii ñoo bokk ndey. waaw ñoo bokk bàyyi ndey yaa leen tàggale. Hmm. yalwaan woyaan moyal. waaw kay voilà. Ah, yalwaan. <laughs> woyaan moyal ak woyaan. ak woyaan <laughs> ñii waana leen ju. <laughs> waana leen jur waaw leen jur léegi nag yelwaan kenn xàmmeetu koog wayaan eh, le wayaan moyaan buur ko daan def noo ñu ñi neexiti làmmeñ ñooy wayaan waaw léegi yow dégg nga <laughs> léegi moyaan buur a ko daan def xam nga rek wayaan baax permis nga neexu làmmeñ ah wayaan itam de dafa amoon nu géwél daan wayaane waaw da daa ànd ak géram du ca xool intérêt léegi-léegi mhm. dem woyaani ca alalam ca àll ba dikk jox ko moom lay wax léew la bu fa loogul géwul bu bëggiw la mën a ànd moom dëgg la war a falu te yoroo yoroo ca ña nga maaseel yow waaw bon ñooñu nga dem wuti ba am ca ña am dikk li leen ci dimbali mhm. di ko jox xarum tudd moo xëy bu asamaan sa tey nga fees ko taxaw lamb sa poste génn sa xaalis wëlbati ko ko loolu moom la géwél daan def mhm. lëf bëgg am ñu lu yàqu ñu woo leen géwal yi mhm. ñu woob géwél léegi géwal duutul defar mais géwël defar ko tax a jóg ñee ñëw askanu ñee ñëw. waaw parce que maa ngi fàttaliku. defar ko tax a jóg waaw ci ci mbirum Kocc Barma pour wax la rôle bi géwël yi doon joué bi Kocc ne ñeenti jubam yi euh, ku ko xam rey ma di ko wax ko euh, daw dem ba xuree jukkuli mu ger jabaram jabari Kocc ba mu wax ko signification euh, signification jubbu yi. jubbu alors am ci boo xam ni nag. moom euh, moo di mag mat ba cim réew mag mat ba cim réew moomu euh, nett nañ ma ni ma góor gi mbuub la sant ab géwal la ma nga dëkk mbul bi mu ko déggee dafa ñëw ci daaw dem ba xuree jukuli wàccul sax aw fasam ni ko yow de kocc mi yéen a bokk menn maam te lu ne daj na ko pour nga toog fii nga toog doon dammeel di Kajoor nga taxaw fii sa nawle yépp wër la nga ni da nga koy rey man du ma ko fekke maa ngi dem saaw yoon tourné wu fasam ñu naa ko xëy góor gi mbuub góor mu mu avancé loolu moo tax daaw dem ba daal di bàyyi kon géwal da daan defar même dameel même buur yi sax buur yi ñu leen seen géwal jege woon ci li leen wax dëgg di leen teg ci wu yoon lu mu nar def te waru ko mu dindi ko ca léegi loolu lépp wax dëgg yàlla bàyyi. baax conseil technique la woon conseil technique la woon. waaw géwal même sangoor bi fi ah, jógee ah, ah. dafa amoon groupement ba mos naa ko wax fii. Mhm. dafa am euh, màggati géwél yi am na benn boy nag bu ñuy wax Amadou Kouyaté moom it ku da ku mën a taxan la wax dëgg yàlla moom. Euh, booy porté plainte booy boo nga bu ko <laughs> dégg nga Amadou Kouyaté benn caméraman la bu ne fii mais moo dàq taxan ci réew mi. yaa ngi dégg te boo taxanee sax ba ñëw ay korfeñam la lay tiime ni la il nga musal ma ci. <laughs> man géer yi léegi yi man. déedéet euh, taaxuraan kat baa ko wax. ah waaw léegi kenn dañu koy tëggal mool bu ko dëj tànk bi ñu dëj. waaw mu génn ko sant ñang mu ne ko mi jur malam ci kulik daara maram ñang a ase mi ci cënk bakka daara mu ci mbayeen mu ni géewul duutu mu seen géer seen doomi na jaay laa damay mos lu musal leen mbaa ma woy anu seddu <laughs> damay mos leen mbaa ma woy kon ne loolooy am loolu lay def de ba xam boobee dama leen ni lii mooy continuer ah waaw léegi ñuy wëlbati dëgg la amul géer amul géewul am na mhm. mais nag ku jàng eh, baay mbaax loolu d'accord uma demal déglu ma tuuti ah man d'accord ci boppam ah, bindu ko waaw yaa ngi dégg mhm. ku ne amul géwél amul géer jàngoo histoire u siraxata mhm. Mhm. laa jëm waaw kay mhm. que jàngu histoire u siraxata boo ko jàngee nangu soose yi foofu lañ jàpp dëgg la waaye alxuraan andiwu ko bandi aadama la bind moo tax nag ñu ne amul géwél am mën ñoo sëy mais ci kaw lenn parce que dégg naa ko bërki dem ba tey yooyu du ci def ngal ngal ngal ngal ngal ah, ci diggante gér ak waaw ah bi maa nga nag dafa am ñoo xam ne fii ne xam nga luñ jóg ah. xam nga luñ jóg te moom la ñuy xeex te ñu nga ca bu baax xam nga bàyyi mbaax euh, mbir su fekkee bu yàqoo du la wàññi dara mu yàqook mu defaru benn la ci yow mais am na ñoo xam ne ñu ngi xeex actuellement pour jële fi ab ñeeño ak géer ñun ñëpp nu yem parce que peut-être ñoom euh, bu bu nu delluwaatoon doon joxewaat cër yi du ñu am ku dul am nag bu yàqoot du la wàññi dara mais xeex boobu defe naa ni du mën a jàll parce que am na géer goo xam ne du bàyyi mukk géeram googu am na ñeeño boo xam ne ni du bàyyi ñeeñoom googu parce que il est fier ci li ko yàlla def. foofu xam nga ñi manqué rek ki manqué rek mooy xeeb li mu doon. yaa ngi ñëw toujours ci li may wax. waaw kay mu ngoog dama la ni. <laughs> Mhm. boo mun na jaay cim réew. Mhm. <laughs> nu réew ma mel baax na. <laughs> nu réew xam nga waaw nu réew mel ci baax na mais dama laa xamal ni la. Uh-huh. sant yi sant yii ñi wax moom. Uh-huh. amul géwél gi aada ju fi yàgg la uh-huh. te maam Alaaji Maalik di am na lu wax moom mm-hmm. ci taawun gii waaw Alaaji Abdu dëggal na ko mm-hmm. su suñu nopp ak rajo bi de mm-hmm. maam Maalik nag maa ngi ko nettali nee na ba ñu koy waxi géwél da ni man day man Maalik ndar de géwél yee ma def ilimaan xaw ma am naam déet de waaye man Malick bu ñu ma gànna see lu ma rafetle woon leen ko lu ma ñaaw leen nëbb ko. Mm-hmm. est-ce que est ñu taxaw caawa ne ko genn këru ngéere fi ne ak sa kër gii. Mm-hmm. caawa gépp ay gawlo la ak wala ki tëgg ki ak ak ak jaami gi wala ak ak ak lawbe. Mm-hmm. ñu ne dañuy geraw bu kenn de bu génn wala kay war ngaa fàttaliku loolu. bu kenn mayete kenn. allah jab tontu leen di leen man day xaw ma géwél a géer am naam déet waaye man Abdou di fi laa ko fekk. Mhm. bi daanaka su ma borom bàyyi fa laa ca xam. bàyyi fa laa ca xam wax na dëgg. est que yaa ngi dégg. waaw bon bi bu ma borom bàyyi fa laa ca xam. Mhm. te bari na ñuy wax géer ak naan amul géwél amul géer. Mhm. mais dama lay xamal ne la. am na naam. ci tur. ca siraaxata ndax du fi xeej. yaa ngi dégg. mais dama lay xamal ne la li gën a indi mbir mi dëgg dëgg dëgg. noonu ku ne ku ne bañ banaa amul géwél amul géer. kër goo dugg noo nga fa xanaa jànguñu réew mi. xanaa jàng kër góor dugg rek noo fa. yéen a nga fa. bàyyiwuma fenn. waaw waaw parce que damay dégg sax ñu naan soo demee. déet boo boo woyee kulima ca seen ngi ndaat. déglu rek géwal dugg géer dugg. déedéet waaw loolu soo déedéet boo déggu ñu ah, euh, la ca ndaat ak géer la ca ndaat. koo ci woy ne maa ba sàmpe ndaat mbay jéeri ngoone. loolu ay ay am na man xam naa histoire bi. Mhm. te dañ ma ko ne dama ko jàng. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. kuli mbay la ak jaalo mbay kuli mbay ci boppam jaalo mii moom la dabeel denc kuli mbay mii di ko topp si ko ñu tëggal ko gaaju ci guddi ñuy fecc ba kuli feccee lobe mbay lobe mbay kon lobe mbay ba ba nga kuli feccee ba ko jaalo ko lobe mbay ak ak ak kuli mbay ba nga ma kuli feccee dameel génn kii kana ñu ne ko kooku day lobe mbay la euh, lobe faal lobe faal la lobe faal ak lobe mbay ñaari lobe yi la mu ni ko kii ko mu mu ne ko wax na dem ci wanag wi mu dem ci wanag yàlla bàyyi leen fa doom nag géwél dikk bëgg a way ñu daal ci lobe faal tagg ba yeggal mu génn ko damil génn ko ne way leen lobe mbay nag xam nga foo borom xel mu rëy nga fa mhm. daal ni géer la seen daal ak kéwalum ndaat koo sioni maa la bay sàmme ndaat mbay jëriñ <laughs> waaw ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak mhm. yeneen yoo xam ne soo ko mhm. waxee li li faral di wax léegi ma noonu am na yoo xay boo ko yaa ngi déglu dafay am loo xay munta nit goj bu na am na pas-pas dëgg la waaye géer ak géwal moom ku ko bëgg a dindi ci réew mii maam yi nga fiy jëlee ndax am na ci boo leen toppee rek géwal jur leen maa la loolu ci bum soow lu tax ñu doon ko tere waaw tibbum sawara mhm. ñu bari dem na ci ngéwul tibbum sawara leen ci yóbbu te ñu diw géer dëgg la ñu bari doon nañu ay géer tibbum sawara leen yóbbu ci ngéwul ba ñu doon ay géwél mhm. maa ngi maa ngi fàttaliku sax euh, le ministre ancien ministre de la culture Abdou Aziz mbay parce que kooku dafa ma neex ndax moom xam nga géwél la ah, ma nga dëkk ndaat waaye dafay wax ni ma ni ngay waxee El Hadji Tall Ngol Ngol déema dimbali ngir yàlla soo may wootee nga wax ma Abdoul Aziz mbay jéeri ngóone parce que il est fier ci géwél gi mais bari na fii nag Sénégal ñoo xam ne jàng nañ tubaab euh, peut-être seen baay aussi jàng na tubaab euh, ñoom ay géwél lañu waaye nëbb nañu ko du ñu wax mukk man géwél laa parce que loolu xam nga taxaw ni man lii laa kooku ku fier ci boppam moo koy def xam nga man toujours damay wax gars yi ni leen man ab maaboo laa dëkk ngol-ngol di satub lattal ko du mbaaxee mais loolu moo ma gënal doon géer fi ne nii loolee ma téye bëggumaa doon sëtub kenn ku dul sëtub lattaal parce que li ma doon ak euh, samay maam liñ ma nettali ci ñoom ciy baax ciy def ak samay baay yi ma xam nekkoon ay jàmbaar dekkoon ay liggéeykat mais man lan laay dem di abbi baayub jaamur te am sans bos ba noppi lan laay abbe maamum jaamur mais bu Abdoul Aziz Mbaye maa ngi lay nuyu bu baax parce que keroog ba ma déggee nga wax loolu sama xol dafa sedd ci yow ma xam ne yow nit ku wóor nga xaritoog yow sax wóor na parce que nit bu xeebee boppam dugg ci moom sax wóorut baay. waaw kooku koy bàyyi. xaw ma baayam nag aw turu baayam mais xam naa bokki baayam. waaw ah, bokki baayam waaw. bokkuloo ko doomi waa ji mbay procureur bi. ah. procureur bi. déedéet déedéet bokkuñu ah, ñoom ñoom Abdoul Mbaye bokkut ak ñooñu. mbay moom. waaw foo déggee ñii ñoom euh, ndaat la ñu jóge waaye moom ndijaayam ndijaayam ma nga dëkk bu ñuy wax kokki kokki gee ca ginnaaw euh, Pekes. mbay joo fi dégg ay bokkam mbay joo fi dégg laa wax. Mhm. ndaat la. waaw su dee géer kër saa xew soxna mbay la. waaw jatti yaa ngi jatti mbay la jatti mbay la dafa toll sant daa am fu sant dëkkul fenn waaye daa am fu mu yàgg. waaw kay mu ngoog nit ñi nag loolu la ñu gën a mën a nangu. Mhm. ndax boo demee léegi Jolof. Mhm. Faal jaa fa Jóob jaa fa Njaay jaa fa. Mhm. boo demal siin jóob jàng fa njaay jàng ma nit ñoo toogut nit ñi def dem ay Amérique di fa juri ay doom di ñëw boo leen wooyee leen Kajoor boo leen yóbbu leen Bawol noonu la histoire u Sénégal la mel am na ci ñoo xam ne fu ñu juddoo dañu ko <laughs> ceeb te ku tudd ndey nag di nga tudd baay. ñooñu daal sax diw diwa ko jur. waaye diway ndeyam. waaw loolu jóge ci réew mi ku am kër ndey am kër baay de. ah waaw ah am na ko allahu akbar. <laughs> seet mais nga ne am na ñooñu bëgguñoo tudd fañ jóge. de de déedéet. ah mais ñooñu lu leen dal. baay bi rek la ñuy tudd waaye duñ tudd seen ndey ji. ah kon ndey ja xëy na benn tànk la ah, yooyu. déglu rek li ñu aadaal la. <laughs> te géwél xamees na ko buur daana ko jël buur ah. du fanaan ci dëkk moom rek. waaye nañ def ndànk doomi buur mun la tëggoo maay doomi soxna lañ daan tëggoo waaye doomi buur gé du fanaan moom donc dëkk bu mu sa dem ca démboon waxuma tey waaye ca démboon jóg leen am buur mu dem danaay woolu ca géwél ga mbaa tëgg ga mbaa ca jaa jaami ñeen ko ko andil ko ko buur Moustapha moom dong moo tax nag ci Kajoor bu ñu lenee doomi waaye waaye doomi buur la <laughs> bekk géej li nag biirub jigéen mbaal la rek waaw indi na sëdd indi yabo indi na jàmmu jën lépp ci biir jigéen la jóge na ma yàlla baal baalate ma kon nag ginnaaw mbir yi noonu la mën a demee nit nit ñiy defar ñoom ñuy liñ yi ñuy defar ñuy liñ yi ah bu ñu liñee dañ lay laaj sant bi rek ko ci ku la jur mu ni diw nga ne ko ku ko jur mu diw nga ne ko kuy sa baay nga ne diw mu ni sa baay mu ni diw nanguwuñu loolu kenn xamu ci sa maami baay kooku nag loo neex wax ndax xamoo sa maami baay waaw te kenn xamul nag noo juddoo mën mhm. naa def ndànk mhm. te it mag ñi dañoo mën a na defar. dañ daan for ñu càll ba dikk wëlbati ku mu gën leen doom juñ jur. waaw ah, waaw mag ñi. daan naa dégg it géwél yi di léem naan doom bu juddoo nuru baayam. tuumay ndey ja jeex jeex na. waaw it am na solo ah, ah, mais déggoo liñ la wax. waaw ah, oui di nga il faut nga nopp bi mbaa bakkan bi mbaa mbaa bët yi. waaye léeg-léeg gis koo xam ne ci kër. de waaw fa alhamdulilah maa ngi defar alhamdulilah da nga koy xool nga xam ne kii nag moom. <laughs> maa ngi defar maa ngi dañoo mën a defar defar gi maa ngi doon defar gone yi dañoo bëgg di dindi defar boobu. Uh-huh. te bu ñu ko dindi li ñëw ñu kenn seen bopp la ñuy li ñi. waaw waaw amul amul géey ku ko fi bëgg a saxal sa bopp nga bëgg li ñi maa la <laughs> te man li ma lay wax dama cee teg sama tànk ndax duutuma gone. déedéet dootoo gone de. ah, ah waaw waaw. <laughs> kajoor gi laa juddoo pir ga ma juddoo am na jumaay am na ñeenti téeméeraat. waaw waaw moo mag ci jumaa wendare yi tan tuulu la ñu dem fa tundu sañoxoor mbarag lu xule laa juddoo voilà jeex na am na fanweeri damee la mu ci réew mbarag lu tundu sañoxoor nga juddoo waaw waaw ba jolo fa ko taaloog daay laman la moo taal la laman béygeeg man laman baraamar njaay wigéey juba damel taaloog daay bulug ndëkk ba mbanaarug bambi loolu mën nañu ko fi jëlee déedéet <laughs> ah jéy jóob ne ne déedéet dinaa jël waaye may tam boobu jigéen ñi xas jéy jóob jëgan jóob kër ma taan du bewul bi si mbarag lu jur fa ma seeb jey ma muur jey ma kumba jey aatu jey ñu ne jëy jooba jëy joob jëy joob àcc na jeeg ñi dañ daan xuloo mag ñi di xuloo géwali taggate bi joom xuloo la woon ndax looy tontu la mais xam nga bu ma gisee sax par exemple li lay xamal nii am géwal rek a neex xam nga fi ne yow émission bu doon ñaari ministre sax fokk nga dem mbaragu kan man waaw kenn mënut a tee dama ne parce que loo am yaakaar naa ni mbarag loolu ko maax la benn affaire waaw gis nga man fi mu ne mhm. kenn damaa mënut a wala yànge waaw ndax dama diw jëba siin Ah, xam nga ci télévision laa waaw mais Mbaye laa san géew li ma wax géewul yaa ngi koy dégg. Mhm. géewul boo fa woy tudd ma. dëgg la dëgg la. moo fi woy rek di parce que man saa yu ma la waxee ak ngéwal nga wax ma li ngeen bokk. du déggoo li ma la wax. Ah, waaw te fortaatuuma ko de. tappalaatuuma te te te bi nekk ci yow. nga xam ne ku ku dëkk mbarak lu moom bu yoree ak bu yorut ñoom ñëpp nga fonk. dégguloo li ma la wax ñoom ñëpp nga teg ca kaw. dama te toog naa ak yow palaatoo nga ni <clears throat> doo doo dem di wuti feneen géer. waaw man ngaa amub relation nag waaye mbarag lu moom dëgg dëgg fidélité boobu yàlla na nga fi yàgg waa mais sa kër ga fu mu toll dama ne mooy mooy ñëw mbarag lu bu ñu ñàkkee àjjana man da am sa war a <laughs> est-ce que voilà gis nga loolu mooy géwal ba dama ne mhm. billaahi ñaari dërëmi géer bu sant xulle mhm. moom a gën nañu liggéey ba dañu fay ma deux cent mille est-ce que dëgg la seen ñaari dërëm mhm. ndax gàllaaj la gàllaaj la ndax euh, maam Alaaji Malik Sele xulle ku jëkkëreel nagu nagu gàmm ci Tiwaawan te bu ñu wax man la ñuy wax foofu. daa mu ba jant guddi jant asamaan bëgg mu laaj ay burey. maam ak maam Sele ne ko Malick lii lu mu doon. mu ne ko ah, lu door sew. lu door sew lu door sew maa ngi dañoo mën a wax. lii dama ko def pour ay jënd koy basang ñii ma teral leen ci maanaam jànkat yi jëndal leen ci soow ak yooyu dafay mu ne ko mënoo maa sarax gan yi. mu ne ko ah dee doy waar de mu ne ko nga jàpp ci njugu faama. mu ne ko may naa la gan yi. maam Sall reyal ko fanweeri nag ak ñett di fanweeri at ak ñett ndakaaru ndar door a wàlli mhm. lii soo ko déggee maa la ko wax mbaa ko sant si. dëgg la dëgg la. parce que dégg nga laa mhm. bon mhm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu kuy waxtaan ci maam El Hadj Mali bàyyi si la xulle kon xam nga li ngay wax. dëgg yàlla wax dëgg yàlla. ah waaw. bon te leen leneen ak leen noonu la mel. histoire yu ci bëree bëri noonu la mel. dama ne ñu xam taal bi ba cin li bax. bi ñu yekkee dañ leen a fàtte tur. fàtte ña taxane woon. dem ah, dem de waa waaw waaw ay dem na kay sa ñaa xam ñoom dañoo taxane képp ni waa Sénégal de xam la ñuy wax waaye ña taxane woon mat mi kenn du leen tudd léegi <laughs> mooy histoire réew mi uh-huh. soo amee lëf daal yoru lëf mm-hmm. tubaar fa kal la foo toll di dégg as lëf mm-hmm. su fekkee yoroo dara xamal nooy toogee si mbooloo <laughs> da ngay xam nooy toogee bala ñoo dikk ñu sëriñ Alaaji eh, Diw Mbaay ndax dama la ne baax bari pexe yi bokkut mm-hmm. nit ñi bonuñu waaye mag ñu jëkk ñaa baax ñii nag dañoo bari pexe yi ndax boo baree pexe yi soo dee ngénte commissaire a nga ne nuyoo ak moom inspecteur a ngi nii kii ministre bi ne maire a ngi nii et kii député la boo directeur service baa ngi ne agent ngi maa ngi xamante ak moom wiyaay loolu lañ naan wiyaay pii loolu mooy bari pexe yi waaye nag du la ni kii kat maa ngi moom a bokk ndey ak baay kii baayam mag sama baaya kii sama tàntaa ko jur ah. kii sama doomi jaay ko jur xew woo ci dem duñ la par présenté ñooñu waaw am na ñu mel noonu mais am na ñoo xëy na seen booy wax ñëpp kay. waaw ah. fii kay boo ko déggee uddan taxul ñuy wax <laughs> lonk bee tax ñuy wax kay. waaye uddan kay taxul kenn dox mi moom jub na ba noppi ñi jub ñu ci wax yi. Mhm. waaye il faut nag nga yéenal ndax da ngay wax ci àdduna ah, mais nag ndakaaru fii nag bay mbaax léegi gars yi buñ fi ñëwee ba yor xaalis nag dootuñu soxla géwél bi jógee ca gàjj ba de géwél yu VIP yi la gars yi soxla géwél yu siiw yi. pourtant géwél yi fii nag dëkkuñu fi. ah waaw dëkkuñu fi mais. xam nga léegi xam nga man. mas na xar ma net la man mas na maa wax sama benn xarit. géer la am xew saa yu ameew xew ma gis benn géwél bu siiw mooy wax mooy def lépp te géwél bi koy woy géwél bi koy woy ma nga jógee ca àll ba Kajoor benn village bu ma ko tuddee xëy nañu xam ko moo tax tudduma dëkk bi fa lay jóge ca maami waa ji lay tàmbalee woy woy baay bi wetug baay bi woy wetug ndey ji ah, mais géwalum Dakar bi moom wax dëgg yàlla borom yàq bu rëy beeg yooyu rek la ma ak lam bu rëy beeg borom immeuble yeeg oto yi waaye du tudd menn maamam ndax xamu ko <coughs> te waa ji waa ji nga xam ne mooy géer gi suy mayee xaalis géwalam boobu jóge Kajoor mën na koo may cinquante mille wala cent mille mais géwalu VIP bi mën na ko may cinq cent mille wala mu bindal ko chèque wu un million may ko te pourtant kee mooy vrai géwalu juddoom ba moom ay maamam sax bi ñuy dem lël ñeleen leen resu woon famille boobu la ñoo daan njëkk a jong moom maamam topp ja mais comme du géwal bu siiw aussi gars yi changé nañ ay géwal de xam nga loolu ah, gars yu bari changé nañuy géwal ah, ah loolu de sa waajo bokku ci waaw yow waaw yow say géer bokkuñu ci moo Modou Khoule de <laughs> waaw doom jëlee takk jabar <laughs> ca dëkk bu ñu naan Puuti Malicoumba Jaariñ ñëpp ñëw. ñu bari ñëw. ñu ne ci tubaar fakkal la ku taasoo ko wax mu defal na ma lii defal na ma laa. Fat jàll nu ñokkat jóg ni leen yéen ñii. da ngeen a xam Modou Khoule. waaye bàyyi leen nag. bàyyi leen nag. ak bàyyi mbaax. kii dëkk mbarak lu Khoule. mu wax leen kanay Modou Khoule waaw kay waaw Baye Mbaax nag yëg si noonu waaw déggal bi wax kon nag noo ngi siyaare moom itam di ko ñaanal jàmm bala ngay kii noo ngi ñoo ko ñaanal Modou Khoule jàmm mhm. tubaar fa kalla keroog defe naa waa Pout am nanu gan mhm. keroog la ma may kër tubaar fa kalla euh, li ci des itam moo di Abdoul mhm. Abdou Khoule ci parcelle ci dend kaaf bi moo aaye mbootaay gi sant xulle dimanche jii ñëw incha képp ku sant xulle kër njaga mbaraglu xay babal fasil ndukkumaan kër njob ba binta ba Mbakke Ngulek Gosaas. Mhm. ba bëggee dem Louga Ngulek Njang. Mhm. bàyyiwuñu loolu fan lay amee Pikine. Eh, déedéet fële ci ka euh, euh, parcelle. parcelle asile waaw waaw. ñooñu sant xule ñe incha allah ku ko ceeg ak ñi ci bokk ñëpp. Mhm. sëti baasin xule ci ko gàttal rek. ñoom ñëpp incha allah dañu fa dajee dimanche. incha allah yal na yàlla may jàmm. ba nu fekkee ko ba weesoo ko ci barke Rasulullah. waaye nag Abdoulaye Mboube Sana. ah docteur ñaari yoon yàlla yàlla xëcc fa dama ko jabootam te nga bal jëf jërëjëf mënta ñàkk jërëjëf Baye Mbaax xam naa ni moom mbarak lu lay tàmbalee fa lay daaneele te loolu lu am solo la parce que vraiment et puis ndaje famille boobu aussi lu am solo la parce que mooy tax famille bi xamante. di mhm. jëlante ay soxna. Mhm. di demalante que dikkalante parce que famille moom bu demee ba amuñu ndajem famille dëgg-dëgg booba famille nekkatul famille. Mhm. parce que il faut ngeen di gisee. sa doom parce que ñii ñu nga ndar ñii nekk Kaolack ñii nekk Tamba ñii nekk Fune ñii nekk Ziguinchor bu ñu dajee nag amante numéro yi téléphone. xamante mën nañoo dem be sa doom ji juddoo Saint-Louis mbokkam ma juddoo Ziguinchor moom kooku lay takk soxna bu ko defee seen famille du tas parce que lii gën a tas famille yi mooy ñàkk ñàkk xamante mën ngaa daje koo xam ni peut-être seen ñaari maama bokk ndey ak baay mais xamante leen parce que amuleen leen daje famille kon ndaje moom man sax bu fekkee am naa jot fas naa yéene sax teew fa mm-hmm. parce que bëgg naa sax baay mbaax nag mu dem ñu jéem a defi pexe ba def émission ci mbarak lu xule parce que vraiment yow comme nekk nga sunu góor ak liggéey bi ngay liggéey fii ci télévision bi laaj na aussi ñu dem ànd ak yow euh, mbaraklu ñu def exactement nag l'histoire réelle de mbarak lu xule nga xam ne mi ngi foofu ci boo génnee pire rek defe naa jëm ngaay alors euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu def fa émission. bu nu yàlla maye ba ba dem ba nu ba dem fee. mu ngoog waaw kay leen ko wax dinaa wax ak ñoom exactement ñu fexe ba def ko. mbarak lu di génn nag ci télévision bi ñu gis dëkk ba gis la fa waa dëkk ba def kon nag euh, maa ngi ziar ñëpp di nuyu nag euh, encore une fois sama xarit Thierno Correa nekk Abidjan. parce que il faut ma di ko nuyu ndax nit moom bu la bëggee di la dimbali mënoo lu dul di ko ñaanal yàlla te man ku ma defal teraanga nag du ma ko nëbb bokkuma ci gaa yooyu naan miik rek ak li ñu ma defal man duma def loolu di nuyu aussi euh, suñu xarit bi ñu dalaloon Fuuta parce que ngan nga dafa neex muy amaat Ndiaye ak soxnaam Yaay Si maa ngi leen di nuyu di leen euh, ñaanal jàmm ak salaam kon nag euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ba altine ak jàmm incha allah buñ fi yàlla bàyyee moom mi nga xam ne moom rek a yor lépp innal humura bi yadillahi kon nag euh, ba beneen Aliou Lo de ko jaar di ko ah, ñaanal jàmm Aliou moom it ñoo ngi koy nuyu lobu maam jaare voilà tey waaye Aliou